kàddu massawu rek kàddu ñëw dox ni doomu Cees yëpp ñëw nemmeeku li metti li xam ne ne sunu frères yi sunu tànt yi sunu yaay yi sunu papa yi commerçant ñu ngi ko dund nañ ko mu doon lakk bu metti liggéey sa alal nga gis mu demee nii le ku mu dalul munoo xam mettit bi donc ñun lu ñuy massa massa xam nañ ne lu diis la si ñoom diis na ba xam ne ne suba pour tàmbali jàpp naa ne ñoom yëpp ku nekk mu ngi ut pexem te xam na ne dina doon lu jafe bii mooy ñetteelu lakk bi xam na ne ne marché central mu ngi koy lakk wax naa ko sànq yu mel nii nag bu amee ñit yi dañuy joxañante baaraam ku nekk du tuuma sa moom mais li am solo mooy ne lakk bi am na ba pare dara wax naa ko te moom laa bëgg a seede muy délégué marché bile wax naa ko sànq bu nekkoon ne moom jéego ak dox yu muy def di dem seeti préfet bu nekkoon jéego ak dox yu muy def di dem seeti mairie bu nekkoon jéego ak euh, wax si rajo yi ak tele yi tey jàpp naa ne kenn du leen ñëw massawu buñ ko mayoon tuuti dégg-déggin noppiwul di dox ci sécurité marché bi sécurité ci nit yi mais également sécurité ci alal bi xam ne ne def nañ ko fi léegi li mën a am rek mooy ne yàlla dogal na jaam day nangu ñun ñi xam ne nekk nañu Thiès au-delà lu xam ne ne parce que état war na ko def ñun yëpp ñu ànd ak élan solidarité bu mag am yéene bu mag. maa ngi woo bépp doomu Thiès bu xam ne yàlla may may na ko tuuti mu ñëw ñëw joxe contribution am parce que jàpp naa ne ne ñun yëpp ku nekk bu si duggalee dërëmam naam du mët mais dina wàññi lu bëri leneen li xam ne ne nag moo gën a am doole mooy tam di ñaan mairie bi xam ne ne mooy gérer fii mooy mairie Thiès noor gën a am taxaw fi xam ne ne doomu aadama dafay nekk dafa am ay normes yu fa war a nekk en termes de sécurité parce que ñu ngi sant yàlla sax lii amul benn perte humaine vie humaine loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax mais di wax na ne yu mel nii quelque que soit situation bi war nañ mën a am ay matuwaay yu xam ne ne ne bu ne jib am ñu koy taxawu doxee ko leneen li xam ne ne am na solo délégué wax na ko ñu ngi ñaan gouvernement bi. ñu ngi ñaan aujourd'hui le premier ministre egg ba ci président marché bi sunu marché la marché bi fierté Thiès la marché bi marché économique bu am doole la fii ci te war nañu leen taxawu délégué ñaan na ko sànq mooy ne trois mille quatre cent quatre-vingts yi xam ne ne ñu ngi fi amuñu place bu ñu leen jàppalee ba mën na leen defar R plus trois dinañ mën a fat ñëpp encombrement du am lakk-lakk du am te yu mel nii nañ ko yàlla nañ si dimbale di jeexal rek di waxaat euh, délégué ak euh, commerçant yi mu fi fekk yëpp samay kàddu massawu di ñaan yàlla yàlla lii bañ fi amaat di ñaan yàlla yàlla dàq lu mel nii di ñaan yàlla tam li xam na ne mooy reconstruction bi wutaat marchandise defaraat kantik bi am ay xol yu baax yu laabir ñëw def seen loxo boole sag effort bu xam ne ne tam mairie yi war nañ ko ñëw def mooy solidarité parce que kuy wax solidarité daf ko wax si nit yi doomu aadama yi mais solidarité dafa war a am ak également si institution yi ah yu mel nii bu amee solidarité dañ koy xaar si institution yi mairie yi dañuy am ay budget yu xam ne ne souvent am na lu ñuy denc si kàllama yu mel nii nañu ñëw joxe ko boole ko ak ñun suñu yéene ak yéen li ngeen dese ñu xam ngeen mën a commencé tàmbaliwaat liggéey bi en attendant état di jël Euh, relais bi maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm merci. waaw ñu ngi nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp euh, di sant yàlla bu baax mi nga xamante ni moo ñu mayoon fekke démb fekkee tey ñoo ngi koy sant bu baax julli ci sang bu tedd bo Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa bi nga xamante ni bi euh, yegg si na sëñ Habib ñu ngi lay nuyu bu baax di la masawu coono aussi parce que ni nga ko waxee doomu kees ngeen. lii bi ngeen ko amee bi mu amee depuis le 20 ba léegi kenn amul jàmm ku ne ñëw na fii ndax lan masu mettit bi fi xew eh, ne nag ñu xantee ko yàlla yàlla mi nga xam mooy dogal moo ko dogal eh, ñu bàyyi li may wax rek eh, xam naa li ñu fi wax fan yëpp mënuñuy wax lu ko weesu mais li ñu gën a taxaw daal mooy état de Sénégal marché centrale bu kees mooy usine kees village waa yëpp ku koy fi ngay wut si wut la yóbbu sa kër yaakaar naa ku ko taxawu créé ngay emploi yu bëree bëri bëri bëri parce que marché bi recensement bi mu ci mujjee def ci ñi nekk ci mbedd yi dem na ci 3479 personnes yoo xam ne amuñ fu ñuy toog moo tax boobu ba léegi ñu ngi bind état pour ñu mën ñu defar marché R plus 3 bu ko defee ñi nga xamante ni nekk ci télé ak mbedd amuñu place bu boobaa daañu mën a yéeg si kaw ñu bay télé libre marché bi doon parce que jamono day dox mu doon marché boo xamante ni euh, méngoog jamono loolu daal ñu ngi koy sàkku ci état lu ñuy gën a jooytu loolu lu ñuy sàkku ci état li weesu loolu léegi ñi nga xam ne loru nañ fi bépp bonne volonté boo xam ne yaa ngi ci kees yaa dégg sama kaddu ñu ngi lay ñaan ya ñu ngi lay ñaan loo ci mën a bënn 15 sax bu xeebuñu ko ci ku ci ñëw ke sa morom def kii def ñaar dërëm bu yàggee xëy na du tax li ñu yàqu la ñu mët ko mais dina xaw a seral xol. no ñi fi xëy ma looru nañ ci marchand tabulier yi dem nañ ci cent cent quatre-vingt-dix tablier bu dee di wàllu cantine yi ak euh, fëgg jaay bi dem nañ ci cinquante cinq. ça fait boo ko calcul di def deux cent nang quelque cinq deux cent et quelque loolu daal euh, moo fi li nga xamante ni man. xayma ci xaalis xayma bi rek moom foofu moom parce que ñu ngi def rapport rapport bi pareegul koo fu mënaguñ ci wax dara mais li jëm ci cantine ak tablier yi daal xam nañu ni euh, tablier yi lakk na euh, cent quatre vingt cent quatre vingt lakk na ci li jëm ci cantine yi ak fëgg jaay fi mu ne cinquante cinq loolu daal lañu trouvé gun pour le moment fi ñu tolloogum mais lu jëm ci wàllu. Euh, maanaam coût bi nan la toolu daal loolu daal yegg seeguñ fa xamaguñ ko te ñun aussi du ñu wax lu ñu xamul parce que lu mel noonu aussi maa ngi ciy dénoncé aussi euh, TFM déglu naa ko barki démb loolu dinaa ko dénoncé ci rajo yi parce que lu ma naqari la parce que dégg naa ku ci wax ne marché bi li fa la koy cent millions la loolu loolu wax kenn waru ko wax parce que benn place bi donc bu ñu laajee borom démb cinquante millions la benn place bi donc sëñ mbuuru bi cosmétique bi kese benn bi kese kon nit ñi bu ñuy wax nañu wax lu ñu xam. kon ay milliards daal ci mënuma wax daal ci nombre de xaalis daal. mënuma rapport bi ah, ëpp na ko daal. waaw mënuma xaar daal benn rapport mënuma ko joxe. kii wax wax jooju tey mooy mu lay wax vraiment ku kooku xanaa xa dafa dul xalaat. kii diñ ci xalaat di wax loolu kooku wax jooju dam koy dénoncer ko parce que wax jooju wax ju amul la xaw ma ku ko wax mais amul ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. li nga xam ne moom moo ci aju nga xam ne war nañ ko rencontrer après en privé loo xam ne c'est d'autre part loolu après ñu mën ko def ak moom donc mais taxawaayam euh, bi ma ko waxee daf ne du ñëw sur le champ sax di parce que bu ñu ñëwee day mel ni ngistal wala dara moo tax presse bi moom wowu leen pour pour dire vrai ah, man maa leen invité ñu ñëw asaka fekk ko parce que lu baax boo koy def da koy mën a wane ba ñëpp gis ko ma ne ko nag na ñëw bu ñëwee wax naa ko kilifa gi bi nga xam ne moom mooy le premier responsable ci marché bi moom la mais en bu ñu koy def ñun amuñ ci benn opportunité lu dul jiite marché suñuy mbokk lakkule ñu war a ñëw jàppale leen kon dërëm bu fi nit joxe dugul suñuy poos ci ñoom la jëm seen président muy ma Diop mooy président des marchands de tablier yi nekkoon ci tali bi te yàlla dogal ñu lakkale beneen parti bi mooy fëgg jaay bi nga xam ne ak cantine yi nekk ci ginnaaw nday mbaw mi ngi nii teew maa ngi nii teew donc ñoom lépp lu ñu fiy def dañ koy def ci seen kanam ñoom ñu fekke ko moo tax vraiment ñu mën ko présenter noonu ne lépp mën a jàppalee da koy def te yàlla tax ndax métti na ku ñëw fii xool nu Petersen bi meloon ak li fi nekkoon 64 cantines yu nekk fii benn bu ci nekk li fa nekk ci valeur ci xaalis soo ko doon xayma ay millions la kon donc loolu dafa métti ndax li fi am nii mosu fee am kon nag ñëw gi nga ñëw du dara moo tax nga ñëw da nga ñëw def acte citoyen seet si leen massawu leen te dégg nañ communication bi mu ñëw avant te xam nañ la bu baax sa taxawaay moo tax vraiment ñu am chance su fekke waa marché bi yëpp fekke ko